démb def na ab vidéo nee na nag Ousmane Sonko def ko violé ay yooni yooni yoon maanaam plusieurs fois Adji Sarr nee amul benn yoon boo xam ne gisante na ak ki nga xam ne mooy njiitu réew mi di président Macky Sall amul benn complot boo xam ne am na ci te nag ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko bu jàppee nag ba sell daa waat ne musta def ak man rapport man Adji Sarr dinaa dindi li nga xam ne mooy plainte bi yéen a kaay gi ba tey ci mi quotidien la njëkk a xame góor gi di Direct News nee na en tout cas li moo ko ëmbal aji saar ne na Ndeye Khady Ndiaye mi nga xam ne moomoom salon bi bi mu yëgee ne damaa ëmb daf wax na ma jëla coca cola ak café nga daal koy naan ngir avorté maanaam yàq ëmb bi moom aji saar ci yéen a kaay gi du ak vox populi ak laas daat nay wax ne mbir mi daal nii nga xamante ni moom la demee man aji saar su ma ni nii lay demee bi ñu ma violé menacé ma dem war damay noppi na pata pataaral kenn ko yëkka yéen a kaay gi di enquête aji saar ne na Ousmane Sonko xam na ma bu baax a baax ndax yàgg naa ñëw nag di ma nettali yi nga xam ne am na ko ci biir benn bisaal na ma yow gis nga aji saara su ma la teeloon a gis yow laay takk ñaareel def la deuxième faaba aji saara ci yéen kaay gi nee na nag dafa dem daal ba wut ay preuve am doo ko porte plainte yéen a kaay gi di wal fajiri nee na déclaration bii nga xamante ni aji saar def na ko incohérence bëri na loola yéen a kaay gi délibération nee na manifestation yi nga xam ne moo fi amoon a jëm ci mbiri Ousmane Sonko am nañu baree bari ñoo xam ne teg nañu leen loxo dugal leen ci kasu bi sëriñ Muntaxa Mbàkke jamono ji médiation ba nga xam ne ma ngi koy dox ma ngay jur jàmm ndax ñoo ngi jëm ci nag libéré mboolem ñi nga xamante ni teg nañu leen loxo ñoom Guy Marius Sagna Assane Diouf ak nag Clédor Sène ak ku si mel ni Birame Souleye Diop ñii nag danañu leen déglu nag ci ak xóotal ci altine talaata ji nga xam ne moom la ñu tëgmal waaye nag ñi nga xam ne jot nañu leen a déglu ba pare ñooñe nag parquet jamono ji pare na ngir nag may leen ab liberté provisoire yéen a kaay gi délibération xëy di kañ Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ne mooy dox tànk jàmm yi ginnaaw cinquante millions yoo xam ne génne na ko ma génn ci libération dugg ci Sud Quotidien xëy fekk fa ak ni mu demee ci réew mi nee na tax ne majorité bi maanaam dañoo néew doole moo tax Ousmane Sonko ma ngi koy exploité yéen a kaay di Vox Populi nee na njiitul Pastef di Ousmane Sonko niki démb seeti woon na Malick Gakou waaye daan wax ne ñun daal bu ñu booloo danañu am doole bu ñu xaajalikoo nag dañuy néew doole yéen a gi ba tey di Vox Populi ñu fekk fa Lat Diop APR géeji waaye nee na deuxième vague bi nga xam ne Ousmane Sonko ma ngi koy wax maanaam danañu jàkkaarloo ak ñoom defante ko fi waxoon ne Macky Sall képp koo xam ne bëggoo mu am ñetteelu mandat danañu génn ak jaas yi Aliou Ndoumbourou Sow yëkkati na ay kàddu mag ci réew mi quotidien nee na Ousmane Sonko maanaam su bëggee ab jàmmarloo affrontement bu dee affrontement rek la Ousmane Sonko bëgg maanaam dina ko am ba mu doy sëkk réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Sambo nee ana nan la Macky di def ba juboo ak ñi nga ne ñooy ndaw ñi ndax bu ñu waxante dëgg ndaw ñi dañoo mere Macky Sall maanaam xam ne ma ngi koy wax ak 350 milliards yi Macky Sall ma ngi drague jeunesse bi yéen a kaay gi di xëy di ñu xibaar naan ñu éliminatoire CAN 2022 ak match yi nga xam ne moo war a dox diggante Sénégal ak Congo ak diggante Sénégal ak Eswatini soo muy tuulee dina metti lool ci Sénégal ndax lu toll ci fukk ak ñaar ci ay gaynde yoo xam ne waroon nañoo ñëw ci Sénégal football waaye nag seeni club ñoo leen tere Aliou Cissé jamono ji maanaam ma ngi si njàqare ak tiis yéen a kaay gi di Stades nee lu toll ci ñaar fukk ak juróom benn ci ay gaynde yoo xam ne ñoo war a jàmmarloo ak Congo